assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi noo mbokk yu baax yi nuyu nuyu bokki taalibe yi bokki taalibe yi di nuyu bokk julli yëpp di nuyu bokk julli yëpp di ziar ñëpp di ziar ñëpp di sant ñëpp di sant ñëpp noo ngi gën a noo ngi gën a yeesa sunu cant sunu borom yeesa sunu cant sunu borom ñu nu booleeg sëriñ bi nu booleeg sëriñ bi sant ci wax bu mën wax bu mën ne doon sant sëriñ bi sant sëriñ sunu lépp mii sunu lépp tey ëllëg tey ëllëg mi nu fàggul lépp mi nu fàggul lépp te teg nu ci yoon wa xanaa rek di xanaa rek di gën a soññ sama bopp gën a soññ sama bopp gën a soññ sama sama bokki taalibe sama sama bokki taalibe gën a soññ gën a soññ bokki jullit yëpp bokki jullit noo ngi ab noo ngi noo toll ci ab tolluwaay toll ci ab tolluwaay boo xam ne boo xam ne il faut que nu delloo ñu sant il faut que nu delloo ñu sant ki nga xam ne moo ki nga xam ne moo bopp réew mi nag ci bopp réew mi ak ñi mu ko àndal ak ñi mu ko àndal bu mat sëkk bi nga xam ne taxaw nañ ko bu mat sëkk bi nga xam ne taxaw nañ ko seen wàll seen gem kàttan soññ ki may soññ sama bopp nag soññ ki may soññ sama bopp nag di ko soññ bokki taalibe yëpp di ko soññ bokki taalibe yëpp di ko soññ bokki julli yëpp moo di nun moo di nun danga war a wéetal yàlla rek danga war a wéetal yàlla rek ci lépp sax dàkk ci di ko jàmm sax dàkk ci di ko jàmm su wartif ndax loolu mënu fi indi ndax loolu mënu fi indi ci tolluwaay bi jamono ji ci tolluwaay bi jamono ji korona korona lu ko waay toñ ko lu ko waay toñ ko ndax suñu boobu mooy def mooy dindi ndax suñu mooy def mooy dindi korona korona su boobu danoo sàkk sakk ko su boobu danoo sàkk sàkk ko muy wéy ci ndigal muy wéy ci ndigal luñ ko digal mu def ko fuñ ko yemloo mu yem fa fuñ ko yemloo mu yem fa xanaa noon kay xanaa nun kay a seet suñu bopp nun ñi nga xam ne nun ñi nga xam ne doo nekk ci diggante doo nekk ci diggante sikki sàkk sikki sàkk jiitu weddi jiitu weddi akuk déng déng yi akuk déng déng yi nun doomu aadama nun doomu li ci ëpp li ci ëpp ci noonu rek la nekk ci noonu rek la nekk ñu ngi déggante weddi ñu ngi déggante weddi ak ngëlëmte ak ngëlëmte ak réer kon kon nu war a jugaat nu war a jugaat jóg suñu bopp jóg suñu bopp seet suñuy suñu tolluwaay suñu tolluwaay nu war a delloo lépp ci suñu borom nu war a delloo lépp ci suñu borom ndax moom mooy def mooy dindi ndax moom mooy def mooy dindi moo xam li muy def moo xam li muy def moo xam moo xam ni mu koy defee ni mu koy defe moo xam li ko tax di def moo xam li ko tax di def nun kay nun kay dana war a góor góorgóorlu rek dana war a góor góorgóorlu rek gën a xam ci li ñu diggal gën a xam li ñu diggal tax ca nekk ca gën a xam it li ñu tere gën a xam it li ñu tere xelu bëkkan nu du ko daw suñu xelu bëgg kem kàtt suñu kem kàttan loolu mooy suñu wartiif loolu mooy suñu wartiif feriñ bi moom sëriñ bi moom dara indi fi woon dara indi ko fi woon loolu jaamu yàlla jaamu borom jaamu yàlla jaamu borom na mu ko war a liggéeyal yonent bi mi mu ko tegtal da liggéeyal yonent bi mi mu ko tegtal na mu ko war a liggéeyee fi ñu ko gis ba fi ñu ko noppee gis fi ñu ko gis ba fi ñu ko noppee gis ci loolu rek la nekk ci loolu rek la nekk kon nun kon nun waruñoo am waruñoo am jenn xalaat wala jenn tiitaange jenn xalaat wala jenn tiitaange wala ñu togg togg suñu bopp jenn fitna wala ñu togg togg suñu bopp jenn fitna lu dul lu dul bu ñu xëttee woo dara lu nekk bu ñu xëttee woo dara lu nekk ci sax dàkk ci jaamu yàlla mooy sax dàkk ci jaamu yàlla sax dàkk ci sax dàkk ci sëriñ si liggéeyal sëriñ sëriñ si liggéeyal sëriñ defee diggam ak ni mu ko doon defee diggam ak diggam ak yonent bi diggam ak yonent bi sëriñ bi sëriñ bi biñ ko gisee ba fi ñu ko noppee gis. tëruwul fi ko gisee ba fi ñu ko noppee gis tëruwul fi dara ak yonent bi. kon lu nu doyee di doyee de. kon lu nu doyee di doyee de lu ñàkk ñàkk solo. lu lu ñàkk ñàkk solo. war nañoo xam li nu am war nañoo xam li nu am. war nañoo xam li nu fi sëriñ bàyyil li nu fi sëriñ bàyyil muy sunu ndono daal lu rek. loolu daal lu wéetal yàlla rek sax dàkk ci yàmm ko te xamit te xamit sëriñ bi sëriñ bi te fas yéene rek nekk rek fas yéene rek nekk rek ci li mu nekk loo mu li mu nekkoon rek ak lu mu li mu nekkoon rek ak lu mu jafe-jafe te doyloo ko sëkk te doyloo ko sëkk ndax ndax fàggul na lu lépp fàggul na lu lépp lu mu nu war a fàggul lu mu nu war a fàggul fàggu na ko tey ëllëg fàggul lu mu war a ñaan boromam lu mu war a ñaan boromam tey ëllëg ñaan na ko tey ñaan na ko te jubóo luy pàggu tey bi jubóo luy pàggu tey bi jubóo na ceeg boromam bu dee jubóo na ceeg boromam li ñu li wéetal yàlla sax tàkk ci jaamu ko nekkal sëriñ bi ci bëgg dooloo ko ci lépp loolu mooy sunu wartiif di li nga xam ne moo nuy noppal mooy dalal sunu xel moo nuy dimbali ci lépp jamono ji waxtu ne bari ñu ngi wax ay jafe-jafe yooyu yooyu yëpp danoo nekkul ci lan war a nekk rek waaye bu nekkee ci lan war a nekk duñ tal dara te noppal nu te dimbali di dimbali mën na musal ci sunu ci ci ci ci yi moo xam ci àdduna la moo xam ci àllaaxira la dara duñu ci musal loolu nekkal sëñ bi ci bëgg rek sëñ bi moom boolewul dara boromam boolewul dara yont bi biñ ko gisee ba fi nga noppee gis loolu moom teg nañu ci teg nañu ci yoon wa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 sax ca dàkk nag euh, ñoo ngi euh, jéggalu ñëpp mbaloo xaq ñëpp di ñaan ñu balonte xaq ñëpp euh, loolu nga xam ne mooy suñu mooy suñu liggéey buñ ca nekkee feeñuwante rek moo ci juddoo ak bu laabirante loolu rek moo ne moo ci juddoo kon nañu góorgóorlu bu baax nañu góorgóorlu bu baax a baax loolu rek mooy kàddu yi nga xam ne sama bopp moo moom laa si jiital ñu jël samay bokk sama bokki taalibe sama bokki jullit loolu rek mooy li nga xam ne ah, dara jigunu ci dund dund àdduna gi waxuma laa dund àllaaxira gi dara jigunu ci loolu taxaw tem ci li di fi andi muy jaamu yàlla te ja dàkk gannaaw ba ko wéetalee nag ci lépp xam ne mooy def mooy dindi ñoo ngi sant ñëpp eh, di ñaan sunu borom ci mbaaxu bi eh, tolluwaay bii nu toll eh, mel ni ne tiital na ñëpp waaye dan baaw ñaan suñu moroom jàmm yëpp suñu mbokki jullit yëpp suñu mbokki taalibe yëpp yàlla daqal nu ndawam loolu nga xam ne du def luñ ko digalut fuñ te fañ ko jëm loo mu yem fa waaw waaye du tee ñaan ndax ñaan jaamu yàlla yi jiitu na mooy ma xo ma xool ibaada li gën ci jaam jaamu kon ñaan faw nu def ko ñaan yàlla euh, gën noo gën noo sàmm gën noo aar gën noo musasal ci lépp luy loraange musasal ci yëpp jàngoro man a doon rawatina jàngoro yi gan yees yi noonu sant bu baax kàddu yi de mënut a ñàkk waaye euh, suñu xel daal na xam ne jàmm yàlla moo moo yombul waaye mel na ni kenn ku ne ci ñun ñu ngi ciy def kàttanam waaye nag mag mag soo suñu borom bi mu néew sax jox jox ak xam bu ñu xamoon lenn loo xam ne dafa jox ak xam ñu mën koo ñu mën mën ko ñu mën ko junj mooy mooy julli ndax ndax la jiitu ci lu war a jaamu sax jaamu nga taw màgg tubaab bi ci kaw te loolu ci rek la mën a feeñale kon lépp loo xam ne moo ñu dimbali ba suñu jaamu jiital ca yëkkati mag su borom bi e aw këlima la ñaan bu baax gàggandu gàggandu doo toog sëñ Tuubaa ba mën a gën a gën ko mën a jaamu gën a gën a mën a jaamu suñu borom gën a sax ci jaamu gën ko mën a sellal def def def ci ñu julli mën mën jaamu jaamu yombul ndax gën ci def moo wax ne amul moo koo xam ne sa jëmm mën naa yóbbu àjjana ñu ne ko ah ah ñaar soxla ba ci yow ba ci man lu dul soo mas ci barab yu dem loolu moo ko wax kon suñu borom jaamu mag mag mag rek la te loolu mënu koo def ba def ba jox ko am xam mooy loolu mooy mooy junj junj boobu waaye nag alhamdulilah rabbil alamin na noonu am xel su xel mën na dal mën naa dal baax a baax ndax sëriñ bi euh, sëriñ moom li muy wax ne rek dañ ko war a jéem wax lu nekk di ko jéem a dund lu xam gën ngeen jege lu ko gën a dund di gën ngeen di mucc di gën ngeen raw kon kon noonu sant bu baax a baax te xam ne eh, gis nañ taxawaay yi li ngeen ci mën lépp def ngeen ko waaye boobu wane noonu te sa sëriñ it kenn mënu ko roy kon noonu ci diggante a xam ne xam sama bopp xam sama wartif li ci góorgóorlu suñu kéem lool ay ay xat-xat kon dañu ñaan rek suñu borom gën a gindi ci boppam gën a gindi ci sëriñ bi ñu ngi gën a wéetal yàlla di sax dàq di gën di xam sëriñ bi di ko gën a dund anam su boobam nga gàttandoo ci biir ak bitti ak tey ak ëllëg jërë jëf ñu sant bu baax baax baax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf tàllal ñëpp tàllal ñëpp tàll ñëpp tàll amiin amiin amiin